وسيخ الذين كفروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi fi teew maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci sa tur ak sa sant di gën a santaat suma borom wala bon di gën a santaat sunu borom ci lii munu may ay at yu bare ñuy toog nii di waxtaan ci waxtu wii te ànd ci sunu kilifa gi di Thierno Amidou Yero Bane may nuyu mbokki Ndeng mooy quartier bi ma juddoo tànn ca ndaw ya di leen sant bu baax teg ci ñi di leen sant tamit bu baax ak mag yi fi das ngi di sant bu baax di sant waa jas la ko kubit ba xabaan ba saakiraak ku ci ne maa ngi lay bu baax di la gërëm di ñaan yàlla sunu borom jàmm nekk ca ñoom di sant waa saafeen tamit xam ne la ko dalee dàgg ba Popenguine la ko dalee Bandia ba Samkéej kilifa bu ne waxtaan naag yow ci am lang ma ca ang lang ma ca ñaanal ñooñu ñëpp ngi di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla sunu borom ñaan yenu ya numa ñaanal ci bés bi di nuyu kilifa yi nga xamante ne ñoo dëkk biir Diass gi tàmbale ko ci chef du village di suma nijaay ñëw na fi ci suba yaram bi neexut waaye dama ko booleek docteur yi ñu seetal ko yaramam ma ne ko demal noppalu ko kon laman googu di suma nijaay maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yëkkati ko di sant tamit autorité locale yi Situ la mairie de Diass ma commencé ko ci seen kilifa di Mamadou Ndione di suma rak nekk tamit doom ci kër Siñ Mor Siis tamit maire de la commune de Diass woo jox ma lay ngantam ma nangul ko loola mu ne ma dinaa la booleeg àll bu ndoy

sant naa ko gërëm naa ko dinaa ko boole ceerno ceerno ma koy ñaanalal duma ko ñaanal yàlla na yàlla fay la tamit Aliou Ndoye ak équipe municipalité bi yépp ndaxte bés bi fi ngeen ko teg yëg naa ko la ngeen ca def xam naa ko seen yéene ci man ci bés bi xam naa ko yàlla yàlla fay leen may sant sunu kilifa bi nga xamante ne moo nekk si njiitu arrondissement bi muy le sous de Sindia keroog bi may waxtaan ak moom dañu def réunion ak moom mu ne ma bu la yeboo demal tëddi te nga nelaw kër googu taalube laa fa kër Ceerno kër El Omar Fuutiyu taalube laa fa ma bokkat tamit ca njaboot ga tax na ba boo yëkkatee lenn ngir ñoom incha allahu rabbi bu agsee ci man dinaa ko mottali bi mu mat sëkk moo tax tous les chefs de service yi nekk ci département wu Mbour yépp ku ci nekk mu jox la ndigal nga ñëw teewee bés bi def ca sa manin la ko tàmbalee waa service d'hygiène fii la ñu yendu keroog waa ak Aquatec ndox bi ñu naan fii yépp gratuite la waa Sénélec courant bi ñu wàccee ko gratuite la waa service d'hygiène ak waa Croix-Rouge ensuite mu wax ma ne dinaa la boole commandant gendarmerie bu Diass muy commandant Faye bii toog xam ne depuis démb ba nelawul ngir bés bi lay tax ba mu am sécurité kon le sous-préfet de Sindia dinaa ko sant ci kanamu kilifa yi dinaa ko sant ci sa kanam nga ñaanal ma te yàlla tax ak chef de service yi nga xamante ne intervenir ci bi yépp rek indil nañ ma citerne ndox pour bañ rek délestage am ci ndox mi kon ñooñu maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant tamit ilimaan yi nekk ci biir saafeen yépp ñenn ñi woo nañ ma bind nañ ma ñenn ñi yónnee ci man kon ilimaan yi nga xamante ne ñoo nekk ci monde saafeen yépp gis naa seen ñaan nangu na gis naa seen yéene ci bés bi yal na yàlla nangu lépp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñi nga xamante ne dugal nañ ci seen loxo ak ñi nga xamante ne aussi namoon nañu dugal seen loxo ci yëf yi mën na am yàlla moo ko defut ca ñoom ñépp sant naa leen gërëm naa ñépp Thierno jërëjëf maa ngi lay gën a sant la ma wax ca biir néeg ba dama ne fii duma fi guddal li ma war a wax yépp wax naa ko ca réception ba ca biir kër gi waaye dafay jékk ci njeetaay gi ma gën laa sant gën laa gërëm danga nga jóge Dakar ni ñëw ci xapru bi fii toog ci kanamu xapru góor gi ñaan ba pare génn ne nañu ñaanal mboolem jullit yi nga xamante ne góor gi fii la leen fekk wa ilaa ñu fekk fi góor gi nga joxe jog ñu ñaan génne armeel yi loolu rek bekloo na ma bek boo xamante ne yàlla moo xam fa mu toll ci man yàlla yàlla fay la di la gën a sant bu baax di la gën a gërëm la ma la waxoon sa kër moo nekk ci man ba tey gii fas yéene wu ma teggi loxo fas yéene wu ma teggi lenn su ma digganteeg yow may ñaan suma borom su ma digganteeg yow yàlla gën koo rataxal yàlla gën koo rafetal yàlla gën ko muccal ayib maa ngi lay sant bu baax ak ñi nga xamante ne ñoom nga àndal. délégation bi jóge Dakar xam ne ñu ngi bokk ci mbootaayub Safina ñi nekk Dakar ak ñi nekk ci région yépp ak ñi nekk ci diaspora bi. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jërëjëfal di ñaan yàlla sunu borom ànd gi yàlla na gën a rafet nii ànd gi yàlla na ko yàlla sàmm ànd gi yàlla na ko yàlla gën a rafetal ci sunu diggante ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi nga xamante ne ñoo ma jàppale ci bés bi yépp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm xëy na mënuma lim tur yi yépp waaye ku ci ne la nga ca daj ci bés bi ak la nga ca def ci bés bi yépp gis naa ko di góor di mak di Jigen di sant njobootu siñ morsi Siis nyom bes bedeng bi dañ ko jël def ko seen bos ñi nga xamante ne ñoo ci jàpp te góor gi tax ci lim ku ne Malik John dama wax sëriñ bi ne John daf ma indil nag suma kër yeew ko fa at bu jot da koy def jibi domo al alsamba daf ma fekk suma kër ci guddi mu ne ma dégg naa ne maada jox na la nag kon duma la jox nag dama lay jox gëléem maada dégg ko mu ne déet kon ji bi day indi gëléem man it damay indi gëléem ma ne ko kon jas toj ma ne bu leen ma tiiñal de waaye yàlla baax na nattali naa lépp ceerno te li wirte woor Ceerno dina ko nettali Ceerno Bachir Muntaxa Daxataal incha allahu bi kon ñii dinaa leen sant ci kanamu Ceerno sant leen ci kanamu Saafeen te la ca gën a doy waar mooy ku ci nekk yëkkatiwaat nga enveloppe naan ma jëndal la koy safal kon dinaa leen sant ci kanamu Ceerno cant goo xamante ne amul àpp maa xam fa ma ko tibbee ci suma xol Malick John Maada yal yàlla sàmm la yal yàlla sàmm la wax naa la keroog ci suma kër ne lépp loo def ci man dama koy nettali Ceerno maa moom suma làmmiñ ku ma defal ku ne ma wax du may nettali de waaye lu ma dégg lu ne mu siw nkar baane haade waaye innun kerax dawa siw kon hay fehe pong siwi dum fiki cerno inu do habdi to dang hay wowo fune jibi ngay baye teaching nu ngade a ine ane nyane ngadu ine ane so nakke ngadu habdi do insyaallah rabbi yalna yalla fay len ñu ngi len di sante bu baax di len gërem di len jërëjëfal di yemande fi di wax assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ñoko mom bes bi wa palor ñoko mom dama waxoon ne du ma wax sax baatu paloor damay noppi ba imaam jóg wax kan mooy paloor fan mooy palor lan la fa siñ mor def kon mbokki paloor ngaydi du corkiɗen fa ne imam a corkiɗɗo waye tam yépp dawna roche yi fi nekkoon salte yi fi nekkoon yépp ak ku fi ñëwoon andi fi jikko day fay ko fi tax na ba ñeme nañu dox guddi ñeme nañu ubbi sunuy bunta ñeme nañu dox fu ne ñeme nañu sax teg sunu kalpe ci mbedd bi c'est grâce à Faye kon yàlla na ko yàlla jàppale muy commandant nag boo xamante ne xale la wax naa la ca biir néeg ba ne ñaanal ma ko ndaxte su ma digganteeg moom xam naa te moom xam na moo tax ma naan la ñaanalal ma ko yàlla aar ko iir ko tamit ci yaf yi yokkal ko loola mu soxla ci biir yaf yi di wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Pout ak li ko wër sooy dem Thiès soo demee ba arrondissement Pout li ko wër yépp gauche ak droite mooy Palor la ñuy làkk mooy Palor langue la boo xam xam nga nit ñi dañuy wax ne séeréer yi dañoo bari façon mais ñett rekk la fii nga ñëw saafi lañu fii mooy saafeen ñi fi nekk saafi lañuy ñuy làkk saafi saafi lañuy ñuy làkk xeet wi saafi la boo demee siin Fatick ak li ko wër ñooñu ñooy siin siin siin siin lañuy làkk ñoo yóbbaale nag ñi ñuy wax ñoo minke baatu ñoo minke soose la du séeréer ndax mi mooy géej ci soose géej ci séeréer yooyu mooy maago la kon ñooñu fa ñu dëkk mooy siin lañuy wax mooy siin siin paloor nag ba kër Cerno Alpha Combaan Pipaloor la bokk ba Thiès am na ñu ñuy wax séeréer noon waaye loolu du xeet dañu doon dóor wolof yi dóor yu bari ñu tuddee leen suñu noon yi loolu moo indi séeréer noon ndax wolof bu leen jege woon rek dañ koy dóor ñu dem toxu feneen su leen wolof gisee ñu ne suñu noon yaa ngoog loolu moo indi séeréer noon mais ay saafi lañ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 wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi ajmain bokki jullit yi fi daje ñu ngi leen di nuyu nuyu bi ñu yàlla boole ñu di ko nuyuwante muy nuyoo boo xam ne jullit bu ko xëy wax moromam morom ma dana wóolu ne lu koy gaañ ca bés ba du jóge ci kooka ndax ko xëy ne ko asalaamaaleykum mu ne waaleykum salaam yéen ñaar yooyu yaakaar naa ne kenn waru ci xalaat def morom ma lu koy lor keroog bu boobu nuyoo lañ leen di nuyoo di leen dalal jàmm di nuyoo imaam Cheikh Ousmane siis di suñu kilifa di sunu sëriñ ci ñi xam eh, wax nañ ko fi waxaati ko fi mooy li waral Ousmane jox waa parole cër bii. mooy góor gi moo fiis bi muy jógee Saalum ñëw fekk na jax fees del ak i borom xam-xam te mu ñëw fees del ak leer ak xam-xam waaye malheureusement amu fi place yàlla dimbale ñu ñun waa Paloor may ñu mag ñu am xel te dugg ci diine bëgg ku leen ci xettale ñu yëg na am na góor gu nekk jas gu ñuy wax mu siis ñu daan ko wax ci séeréer laat waali góor gu am xam-xam la mu ngi door a jógee Saalum am na xam-xam bu doy te jas yëpp fees naa ko borom xam-xam nañ dem waxtaan ak moom comme yàlla dogal na ñoon amaguñu borom xam-xam yu toll ne ñoom nañ dem waxtaan ak ñoom ñu joxoñu ko mu ñëw di ñu julleel it ak korete tabaski ak korete noonu la mag ñi defee délégation ñëw fii boobu am na góor gu baax gu am leer ku ñuy wax alaaj mbay njoon waaye leer gi yëpp ànd ak yàlla dafa fas fas làmmiñ wi maanaam amul fasaxa mu xam loolu itam oyof lool jiite mag ñi ñi ñëw fii waxtaan ak góor gi mosis mu nangul leen ko korete bu jot fii lay déparé daf ko jëkk daan dox ba yàlla may ko buy dem di war a fas bu demee booba ñun ay tuut tànk lañu dañuy daan toog cëb benn am na lu Ousmane doon junjee sax xam naa dafa xat waaye ni kon moo xam ne bu ko doon def foofu lañ koy defee ji ca taatu mbéy ga benn mbéy bu nekk ci diggante kesoxat ak mbadat ak kaacalik waa kaacalik kaacalik lañuy ñuy bàyyi ko dem foofu ñun ñu bàyyi ko ñëw foofu waa mbadat ko mbadat ñëw foofu ñu daje fa di xaar toog diir ñu seen góor gi di ñëw ak mag ña sunu mag ña booba ñun xamaguñu lislaam waaye la daan békloo mooy bu génne mag ña tël di ñëw jiitu mag ñi topp ko ñu naan allahu akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallahi bukratan wa asila fan yooyu yëpp loolu la ñuy yoyantoo fan yooyu yëpp loolu la allah jiite ñu xutbaam ba mu daan xutba ba léegi maa ko garde kër ga bu jiitee ba pare ànd ak mag ñi topp ak kër mu dem fa dajale mag ña fa ne waxtaan ak ñoom ci diine di leen ci am ñuy jébbalu ci moom di am ñoo xam ne itam macha allah nangul nañ ko li mu nekkee góor gi moo siis loolu la daan dafa ko waa parole te it parole da ay bokkam parce que bu ñëwaan catholique alaji mbay wax na ko ci bëccëg ñoom papaam ñoo ko daan dar foofu yóbbu ko ca julleekaay ba bu ñu jullee ba pare moom ku bëggoon a mbokk la daa tànk yookam la góor gi Malick njemtu ca kër gi ñu wax ndinku fa la daan jubal ànd ak mag ñi bu demee Malick njemtu dalal ko tabaarakallaahu mag ñëpp daje fa muy waxtaan ak ñoom bu fa jógee jaar sunu kër sans papa mbokkam la woon mu nekk fa mag ña di waxtaan ak ñoom mag ñële yëpp bàyyee ko fa li ñëw fekk ko fa góor gi moo sës lii la def ñun di ko def booba sama mag moo nekkoon imaamu kër soxat ñuy wax alaaji Ismaila Siis moom jas gii la yaroo man waa jas laa dafa xat waaye kon ma wax leen ni ma nekkee waa jas waaw ndax sama imaam yëpp fii lañ jógee moom góor siis di ñu defal loolu di ko def ñoom ismala moomu di jàng di jàng be yàlla dimbale leen nag ñu fortu leer tuuti góor gi it jëm mag mu ñëw julleen ñu it mu ne mag ñi dama bëggoon ñu waxtaan suñ diggante yàgg na wala re tàbbi na te ñaante bi mu yàlla mu dañ waaye nag ma doon leen ñaan nag ngeen dimbale ma noppal ma ndax maa ngi jëm mag te it la daan tax may ñëw yëg naa ne am na ñu ko fi mën a léegi xale yaa ngi gis naa ne ma bëggoon nag ngeen seet kenn ci ñoom yéen mag ñi xam ngeen leen xam ngeen ki leen sete ken jiite bu ngeen seetee kenn ki leen doy ko dee muy ñëw taxaw sama place bi te ngeen jégal ma maa ngi rafetlu ko lool yaa ñaanante ak banyu mu ñibbisi ba ñu waxtaanee nag yàlla dogal ñu tànn kii may wax nii mooy imaam Ismaïla Ciss muy sama mag ñoo bokk ndey ak mu doon ko bi muy laate gaañu nag yàlla dogal nattu daal waa ki soxat mooy yàlla xaaj leen ñii dem ca site de rétention AIBD ñenn ñaa ngi des fii man ci ñii des fii laa bokk ñii des fii nag man la yàlla nattoo dañ may tuddee imaam waaye bëgguma koy wax sax wax dëgg yàlla bëgguma koy wax waaye daal loolu la yàlla dogal ñale nekk fële mbay Diouf di leen fa jiite Mbaye Diouf itam sunu jarbaat la jarbaat Ismaïla la mu nekkal ko foofu man ma nekkal ko fii kesoot fii ci suuf li ñuy mébét yépp alaaji mooy ñaan yàlla yàlla yóbbul ñu góor gii bekke soxat ci ma dëkk laay wax de sama bopp man sama bopp laay jëkk tawatal mu ñëw fa ma dëkk ñaanal ma fa yàlla ñaanal ma fa dëkk ba naat dëkk boobu bañ koy garaate moo dee ki nu mu tuddati promoteur bi ko doon garaate moo ñu jox turu dëkk bi mu ne fii de tuddee naa ko cité sëñ Babacar mu tëdd ko cité sëñ Babacar ba cité sëñ Babacar moom la koy wax tey nii mu ngi ci wetu Kaacalik mu mel ne Kesaat xawoon na sori Kaacalik tuuti waaye ñun ñi demul fële ñu ngi fii sës ci Kaacalik léegi benn la ñu léegi. Mbadal nag yàlla dafa dogal ñoom la ñu ëpp doole doole bu métti bi dañ leen yóbbu ci site de rétention ba par force ñeneen ñi ci des ci waa Kesaat dañuy dem ci seen coobare bopp ñu nga sit ba waaye yàlla baaxe nañu sunu dara ñàkkuñ ko ci ndax sunu kër yi ñuy toj. jox nañ ñu kër fële ci site de rétention ba ñun ñu ñu ngi fekk suñu kër fii waaye am nañu kër foofu ku mu neex nga luyee sa bos ku mu neex nga yaa xam lii am kër saat ñun ñi des fii nag te yàlla dogal man ma ñëw fii alaaji mii di sama doom baay papam mbokk la ci sama pap ma di ñaan bés jot rek mu indil ma alaaji cernu ci sama kër maa ngi ñaan loolu te dinaa ko soppal incha allah kon alaaji wax ci jarugul la te guddi na te ni nga ko waxee góor gi dafa bari ay itte bari ay yu mel ne yu mu war a taxawee waaye ne kon man nañ ci wax ci mot si si ba kii wax naa ko sànq ca néeg ba première siyaare bu njëkk bi bi njëkk la fii la wax ci mot siis la waral ñëpp yëg ne ah ndeke kat amoon nañu lu ñu xamul leer gi jolle fii fëli jëm asamaan am ku nekk ca penku di seen leer bi di wër leer gi di wër leer gi ba àgg Ndakaaru tëdd guddi gis leer gi féete ko gannaaw mun naa romb naa li ma doon wut mu ñëw jóge ndakaaru dem mbuur bu mu demee mbuur yëf yi mu gisaat ko mu féete ko gannaaw mun a comme dem naa ndakaaru yëf yi feeñu ma ci côté yii ma ñëw mbuur ñu feeñoot ba ci côté yi ci diggante bi damay wàcce dëkk par dëkk di def dëkk par dëkk bee àgg jas ñoon ko ne yëf yi fii la bi mu ñëwee ba ci xëprub góor gi mu ne leen waaw kan la ñuy denc fii ñu wax ko turu góor gi mu ne kii xamu leen ko kii bu ngeen ko xamoon xabru du mel nii toppatoo leen xabru bi di ko siyaare soxla bu ngeen am ñi leen ñaan ko fii yàlla defal leen ko bi ñuy ñëw fii di béyal góor gi bi muy bi ñuy jullee it yëpp dañ daan bàyyeekoo kesaat waa mbaane yëpp ñëw fii di ko béyal benn anecdote mooy dafa am benn bés ñuy béy fii ci guy gu mag gu nekkoon ci ginnaaw këram gaa yi di woy di woy di woy ba jigéen ñi yëpp baabe ko wër sàkket bi si sàkket bi nii di seetaan gaa yi dañu seetaan ba yàgg rek sàkket bi maa ñaay ak ñoom ñu daan ba tey laa njëm te ma ngi koy nettale góor gi moo siis kasaat mënuñ ko fay ndax ñun ñii yëpp mën wax ci leeram la ñuy nàmp ndax sunu mag ñooñu moo leen doon xiir ci jàng di leen góorgóorlu loo bee ñu mën la ñu mën mu soog leen jébal dëkk ba ñu di leen xamal ne alaaji mi fas na wala rek ñun parce que daf ne man dama gëm ne béy boobu ngeen daan béyal góor gi dugub ja ngeen ko daan béyal ma di ci lekk mën naa moom a dimbali bi moom a dëgëralu tey bee mën a taxaw ci gannaaw góor gi kon duma leen fàtte mukk mën nañu góor gaa ngi am waaye boobu ngeen daa ko tuddee palor boobu ba léegi tàgguwul ak ñun buy jege rek bu wax bés bi boobu dana ñëw foofu juma par juma bésu ajjuma waxtaan ak ñun ñëpp. yëpp ñun ñu fàttalante bés bi préparé ko bii ne yàlla dogal nattu ci ñun mooy dañu dem ba préparé di ñëw am sunu xale bu gaañu gaañu bu metti xale bu waxambaane dem football ba ñëw di waaj a sangu rek daanu génn àdduna mu waral ñu bare tey kesaat génn walla gaa nga foofu ñëwuñu waaye xam nañu ne fii ñoo ko moom parce que alal ji moomale dañ ko ba takk te xam nañu loolu déggale ci moom kon nag guddi naa Mbaye ki Ousmane da nga yëg ni kaso sa ham xat la ñun ñu xam moo siis xam na xale ci bari xamuñu ko waaye ñun ñu ko xam daan ko gis buñ la gisee rek moom la ñuy gis buñ la gisee ngay tukki tukki di dem moom la gis kon nag ñu la ñaan yàlla bàyyi la fi nga ñu ca kanam kanam ak sa ñu wala allah waxoon naa la nga yóbbu ma këram booba léegi yaa defal loolu waaw tabarakallahu ñu ngi lay siyaare bu baax ngeen ñaanal ñu yàlla aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa eh, ñu ngi nuy mboolo bi yëpp ak kilifa yi fi teew yëpp Ceerno nu ngi lay beral nuyoo di la ziyaara bu baax a baax di la tatagal di la ñaanal tamit ci yàlla yàlla yàlla yokk say fan yàlla sàmm la ñu lay dalalaat fii tamit ci jas nga xam ne chaque année nga ñëw fii ah defal ñu fi ay ñaan ñaan yi nag gis nañ ci ay yokkute yu bari ndax jas wax dëgg si yàlla Euh, say ñaan ak ñaan yi nga xam ne jiitu na ko euh, am na lu mu yokk ci dëkk bi kon tey dañ leen talat encore suñuy loxo pour nga defalaat dëkk bi ñaan defal ko umma islamique bi yépp ñu ngi nuyu le chef du village di nuyu le chef du quartier de Ndeng ak population Ndeng yépp di nuyu l'ensemble des chef de quartier de Diass di nuyu muxaadam yi fi toog ak kilifa diini yi fi teew yépp di nuyu tamit waa kër El Hadji Mohamed Ciss El nga xam ne moo nekk ci seeni bopp di nuyu tamit oustaz Ngom ak waa daayira bi ci sikkar yi di sargal tamit ki fi doon jàng alxuraan léegi ndax ñun alxuraan rek la ñu am di nuyu les autorités administratives ñu ngi nuyu le sous-préfet nga xam ne tey waroon na fee teew di beral nuyu nag le commandant de la brigade de Diass wala Alpha Seyni Faye ak équipe bi mu àndal yépp di nuyu mbokki Palor nga xam ne jóge nañu fële ci commune Kër Moussa ñëw fi en délégation ñu li profité tamit di leen li nga xam ne moo dal ci seen yéen moo dal ci yéen biig di nuyu mbooloo mi fi teew yépp góor ak jigéen mag ak ndaw di wax ne suñu ñëw fii dañ fi ñëw ndax dañ fee bokk dañ fi ñëw ndax ci kër gi lañuy bokk dañ fee ñëw ndax suñu yëf la mais nag ñëw nañ fi tey pour représenter ki nga xam ne moom la ñu jëf dëkk bi tey muy le maire njoon Ndione ah Mouhamadou nag tey amoon na yéene trop trop trop mu fekkee bés bi alage mais ñoom tey dañoo am réunion bu mag a mag Dakar directeur campagne bu Ahmadou Ba nga xam ne moom ca kàngam yàlla bokk moo tax def na lu nekk mais mënul ñëw loolu nag ci la yebal fii ma ànd fekk délégation bu mag nga xam ne mën nañ ci ràññatle Ndey Astu Siise mu nekk responsable bu mag fii ci jas waaye nekk tamit conseiller spécial bu meeru Ngéeñeen muy Alpha samp bokk na ci tamit Assane Thiandoum nga xam ne ci quartier bi la dëkk mu nekk rakk ci alaaji nekk tamit le secretaire municipal bu commune bokk na ci tamit allage Hadj nga xam ne nijaay la ci moo ci moo ci ci Mamadou Ndione nekk tamit conseiller mais bokk tamit ci kër gi ndax ku xam Mohamed Ciss xam aussi El ak fa mu fax fa mu faxe ko xam ne ñoom bés bi seeni bés la ànd ci tamit ak Adama Diouf ñu gën ko xam ci docteur mu nekk tamit suñu mag nekk tamit nijaay la ci Mouhamadou Ndione bokk tamit ci kër gi ànd nañu fi ak ñaari xale ñu nekk ay agents municipaux kenn ki mu ngi tudd Mahrouf Pouy dëkk Sam Kéej keneen ki Khalifa Sis dëkk Sakira kon ñooñu Thierno ñoo ñëw tey fas yéene bokk ak yéen bés bi muy seeni bés muy bésu le maire Mouhamadou Ndione alaaji wax na ko Mouhamadou Ndione wax dëgg si yàlla ah bi bés bi biñ ko jàppee alaaji ak une délégation dem nañ ba ca mairie ba yégal ko toog ak moom waxtaan ak moom moom aussi mu xam ne lii daf cee bokk jël responsabilité am ah def ci waxtaan ci ak képp koo xam ne war na ci waxtaan ak yow pour ñu jël ci seen matukaay kon loolu aussi il faut ma préciser ko fii di wax ne tey dañoo am mbégte bu pour représenter monsieur le maire fii ci bés bi ci ëtt bi ndax barke kese la ndax na fu rek barke nga fa rawatina fii ci jas ndax ku xam histoire jas nga xam ne diine yàgg na fi ndax mag ñu ñi yàgg nañ fi indi diine ndax El Hadji bi ma leen formé ba pare ku ci nekk daf la yebal ci benn béréb pour nga dem wisaare diine ji Mohammed siis mii nag ci la bokk jas islam yàgg na fi diine yàgg na fi damay wax sax ne Tiwaawoon moo ñu tuubal mais daanaka sax ñun bokk nañ ci njëkk ñi njëkk am grande mosquée fii ci Sénégal ndax l'histoire de la grande mosquée de Diass ça date de 1923 1924 kon Diass yàgg na am diine diine yàgg na fi te ñi fi nekkoon aussi farlu woon nañ trop ci diine ji moo ba 1923 1924 ñu mën a tabax une grande mosquée boobu dëkk yu bëree bëri Sénégal amaguñu sax mosquée kon loolu wane na ne tarif diine yàgg na fi sëñ mbay ñu lay remercier di la gërëm ci tamit euh, histoire bi nga fi tracé tuuti ci wàllu séeréer et jas nag bés bi dafa bokk ci bés yu taaral dëkk bi ndax bés bu mag la te dañuy gërëm alaaj siis bu baax ak ay frèram ak ay magam di ci tànn nag ki nga xam ne mooy seen xalifa bi muy euh, euh, Malick ma nga xam ne mu ngay France te xelam yëpp nekk fi waaye mu jël lépp nag teg ko ci loxol El Hadj mii nga xam ne du tàyyi du sonn pour organiser bés bi bés bi nga xam ne wax naa ko léegi dafa bokk ci li nga xam ne day taaral jas ndax ñun amuñu lenn lu dul lislaam amuñu lenn lu dul diine kon Thierno da lay talat suñu loxo tey pour nga ñaanal ñu ñaanal nag monsieur le maire mi nga xam ne moom la ñuy yéen dëkk bi te wax dëgg ci yàlla ànd na ci ak équipe bu dynamique ñu ngi koy gunge di ko jàppale te moom aussi mu ngi def lépp loo xam ne mën na ko pour mu yokk taaru dëkk bi pour mu yokk li nga xam ne mooy développement dëkk bi bugg nañ nag tey nga ñaanal ko bu baax a baax ñaanal tamit dëkk bi jàmm am fi ñaanal tamit jas jàmm am fi jas sax jàmm am na fi ndax ku xam jas xam ne fii la aéroport bi nekk xam ne projet bu gën a mag ci wàllu port mu ngi fiy waaj a ñëw xam na fi une zone économique mu ngi fi xam ne projet yu bëri ñu ngi fi jas dafa nekk tey une plaque tournante nga xam ne ñépp a ko soxla kon dëkk bu jarañaanal ñaanal la mais ñaan jiinu jiitu na fi ndax sa maam euh, Euh, kii nu mu tudd Cheikh Amar Cheikh Omar teg na fi tànk wàcc na fi ñaan kon ñaan yooyu ba tey mu ngi wéy mais da ngay gën a tollante rek gën ñoo ñaanal may wax ne alaaji wax na ko sànq te dama ciy dellu man la aussi nga ñaanalal ñu ki nga xam ne moo fi toog nii bu nekk le major El Hadj ki euh, Alfousseyni Faye nga xam ne c'est le commandant de la brigade de jas wax naa ko léegi ne jas dafa nekk une plaque tournante ñépp a ko soxla ndax li mu ëmb ci aéroport ak ci li nga xam ne nguur ma nga ko fay indi ndax jas tey am na dal am na dal ndax commandant Faye mi nga xam ne moo fi nekk yàlla dafa def mu ñëw fii jas stabiliser la situation fii sécurité mom ak ñi nga xam ne la andal du du ñu ak bëccëg alaaji wax tey jas dañuy nelaw bay handor. tey jas mel na dootu fi tey jas amatul benn agression tey jas amatul benn affaire de banditisme te yooyu yëpp dafi waroon ñëw ndax aéroport bi donc moom mu def bu ama am am solo ak équipe bi nga xam ne la andal wax dëgg si kon dañu bëggoon moom aussi nga ñaanal ko ñaanal ko ndax mu am promotion ñaanal ko aussi ndax mu am jàmm ndax su amee jàmm rek ñu am jàmm ndax su ñu tëddee di nelaw rek moom mu ngi veillé ci suñu sécurité ak ñi nga xam ne ñoom la àndal kon dañ koy gërëm au nom de monsieur le maire di ko gërëm aussi tur ci turu waa Safen ak turu waa tey guddi na ñi ci war a jël parole xëy na peut euh, euh, ñu ngi ñëw kon El Hadj Mbaye lii lañ amoon pour indi di wax ne Thierno ñu lay gën a ñaanal tamit di la sàkku ñaan aussi nga ñaanal monsieur le maire ñaanal équipe municipale ñaanal waa Diass ñi ñaan tamit Mohamed Ciss mi nga xam ne moo waral bés bii tey El Hadj ñu ngi koy tamit dolli ñaan yàlla li nga xam ne moom ngeen di def ni di organise organiser chaque année baraki ak tuyaay bu ci am yàlla na ko yàlla def yiw sottil ko ko mu nekk njëriñam ëllëg ak ñi nga xam ne ñoo mel ni moom kon kàddu yi laa amoon pour yëkkati. waroon na ëpp fii ndax monsieur le maire lim ma yebaloon ëpp na fi maa ngi gërëm ñépp di sant ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa gannaaw bi nu sante yàlla sunu boroom cant gu yellok jëmam ju tedd ju mag ja julli ci sangu sang yi من سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم يالا سونو بوروم يالنا يالا dolle ràng ay garaate ki maqaama ki nga xam ni sunu wasila suñu digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di a sayidi cheikh ahmed tijaani sharif radiallahu taala anhu ngi yëkkati nuyoo yu tedd yu sell muy jàmm yàlla ak barkeem ak yërmandeem yàlla na ko yàlla wàcce ci jataay bi yàlla na ko yàlla wàcce ci jataay yi mel nii yépp ba jàmm jooju yàlla na wër àdduna bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi jiital ci nuyoo yi ni nuyoo ak ziyaare yi ni ziyaare kilifa jataay bi di sunu sëriñ di sunu wëy jur di cerno xaamidu baan al imaam sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay ziyaar ngi lay jéggalu toogandoog yow bi nu toogandoog yow ci kaw bu dul woon ak seen ndigal duñu ko ñeme ñu ngi lay jéggalu itam kàddu yi ni yëkkati mu lay tiim bu dul woon ak seen ndigal duñu ko ñeme nuyu la ziyaare la masawu la coono yi ngay jànkonteel yépp waaye coono yépp li ko waral mooy li walaf di wax wolof day wax nii soo donnee giléem doo lekk ñàdd ba tëdd boo lekkee ñàdd ba li giléem ya daan sëf da koy sëf mooy soo donnee ay nitu yàlla ay boroom xam-xam fanu daan jaar rekk fa ngay jaar looloo waral coono bi kon ñu ngi la koy masawu di ñaan yàlla yàlla na la yàlla téeñal yàlla na la yàlla téeñal ndax yan bu la ko yàlla yenee dana la téeñal dana la yenni waaye bu la ko yanul du la téeñal du la yenni nuyu la ziyaar la yàgg ñi nga àndal ñépp ay kilifa rek la àndal ay imaam ay boroom xam-xam ay nit ñu baax ñëwit fi mu ñëw fekk fi ay imaam ay kilifa ay nit ñu baax imaam Umar maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar kàddu rafet na di nuyu alxaaji Ousmane Ciss nga xam ni lii yàlla nga ko jaarale ci moom ak ay bokkam ci barki wuy juram nuyu mbooleem kilifa gu fi nekk ronu tànt bi nuyu ñu doon tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa ñu ngi leen di jéggalu li tax ñu leen di jéggalu dafa am beneen jataay bu ñuy xaar te ñu bëgg def laa darra wala diraara fii neex fële neex loolu lañ bëgg yàlla nañ ko yàlla may mu mel ni oustaz ngi lay nuyu bu baax di la ziar kàddu yi rafet na sëriñ bi nee na bëgg na ci yow kontaan na ci yow yàlla yàlla fay la ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni thème bi mooy al amnu wa mooy jàmm jàmm ak sécurité sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu bi imaam doon tudd léegi ni seen quartier ba moom lañ ko tuddee ma ne ko ci sama xel seen quartier am na turandoo bu mat turandoo sëñ Babacar dafa daan wax ni soxla bu dee ñaar jàmm am ne bu jàmm amul soxla benn rek lay doon ñu ne ko si mooy lan mu ni mooy wuti jàmm ba am jàmm yàlla nañ defal yàlla defal jàmmi àdduna defal ñu jàmmi àllaaxira lépp loo yore mu yàgg ci sa loxo rekk jàmm moo am jàmm nag ñett moo koy indi ci ñett yooyu rekk lay tënk waxtaan wi jox sëriñ bi ñett ñooy ubbi ñooy indi jàmm bu njëkk bi soo bëggee jàmm dangay wax jàmm su fekkee mënoo wax jàmm doo am jàmm soo bëggee jàmm laa wax da wax jàmm loo tax yonent bi ni woon man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yaqul xayran aw liyasmut muy xadis bu gàtt bu nit ñëpp mokkal mais danañ ko jàng mokkal ko mais yenn saay dégg-dégg bi mooy des yenent bi nee na ku gëm yàlla gis pi gëm bis pénc yenent bi nee na nga wax yiw soo waxee yiw ba noppi bu ca teg dara noppil waxal lu baax te noppi xam nga ñu bari dañ naan yonent bi ne na nga wax lu baax walla nga noppi déedéet waxal lu baax walla nga noppi day mel ne wax lu baax ak noppi ñooyam déedéet waxal lu baax rek su lu baax li jeexee su yiw yi jeexee noppil ndax làmmiñ dafa garaaw wax dafa garaaw dafa am benn waay boo xam ne ngeen baal ma ci wax ji mooy ñoo ñuy tuddee dof ñu seen xel xaw a rëcc waa dëkkam jas di war a dem benn tudd paloor bi nu waajee waa jas bay waaja dem paloor ci tudd ma dof bi ñëw ni leen da ngeen may yóbbaale ci tudd ma ñu ne ko demal sangu sol sa yére ñu ànd ak yow yóbbaale la mu dem waaj ñëw taxaw neen waaye nag su ngeen ma yóbboo su ñuy tudd ba pare may dugg ci néeg bi di rey liir bi Alaaji Ousmane Ciss ni ko kon doo dem dañ la fi bàyyi kenn dootu la yóbbu gaa yi yéeg ci kaw saret yi ni ko toogal doo dem dàq bëgg a dem mu ni waaye yéen a ngi dem bàyyi ma fi man kese su ngeen demee ngeen tële te yóbbuwu leen ma su ngeen ma fi bàyyee balaa ngeen di ñëw ma taal dëkk bi gaa yi fanee ne taxaw léegi ñii naan na ñii dem ñii toog ñii naan na nangam nangam nan bàyyi ngénte la far toog dem ngénte ñëw fekk ñu taal dëkk bi jaru ko mun leen yéen ñàkk xel mun leen maa jël takk ma ci taatu garab gii dem ba dellu si ñu ne moo ne wax na dëgg di ñu daal di ajj ay buum takk tànk yi takk loxo yi bu mu dëgër teg ko ci taatu garab gi ci ker gi kerug suba teel gi daal di départ jëm Paloor bi ñu demee ba diggu bëccëg une heure ker gi daw naaj wi ñëw naaj wi di tàng mu ñàkk gisul ku ko tekki gisul ku ko dimbali gisul ku ko jox ndox mu ni woo sama làmmiñ wi yóbbee na ma musiba wax naa musiba kon gis nga wax يرنتي بي عليه الصلاه والسلام وير وي نيو ген موي رجب بيمو ديمي غداي الاسراء والمعراج عندك جبريل دي غيس اي مير جبريل ديكو ديكو كب كبل ديكو وان مير ناخ يونتي بي بامو ديمي خولول وون القران نينا ما زاق البصر وما طغى نينا سانغ مدينه صلى الله عليه وسلم نينا بامو ديمي اسراء والمعراج نينا بوتو يونتي بي xolul dara kenn rek la fixé fenn rek la fixé ba hadar jalla jalaluhu wa azza kamaluhu hadar ba rek la fixé yàlla lim ko teggee maa zaaxal basaru wa ma tagha yenen bi ne bi mu demé isra wal mi'raj nee yene jibril yene say mu ne ko pek pek ne ko sang bi mu siggi mu ne ko xolal li nee jibril wan ma fa ben nak nag woo xam ne ci benn fenêtre bu xat ci lay jaar ne day dugal bopp bi ne su nag bi dugalee bopp bi di buut buuti di buut buuti yaram wi du xaj pour mu génn day sonn di fa nekk ba buy génn yaram wi day xoos di nàcc mu ni butt wadd yonent bi ni jibril lii lan la mu ni ko waxangook wax mu ngi noonu balaa ngay wax dara nanga ko xool parce que kaddu damay damay wax ni fakkastalu ci tànk mu dagg di nàcc soo demee léegi ci dispensaire u jas bi fekk fa médecin bi wala docteur bi wala infirmier bi mu fajal la ko waaye fakkasta ci fakkastalu ci làmmiñ neexul faj man nga fakkastalu ci làmmiñ ci benn ngoon di waxaat junni ngoon te du tax mu réparé moo tax looy wax balaa nga koy wax na ko xool na ko set na ko settantal na nga ko tan ba mu wóor na ni li ngay wax du jur fitna ba mu wóor na li ngay wax boo ko waxee du blessé sentiment wu kenn dali ba mu wóor na li ngay wax du ci am lu ko naqari loolu la ab jullit di def pour am kon jàmm bi njëkk soo ko da ngay waxe jigéen ñi ngeen baal ma dafa am benn jigéen du suñu yaay yii nag ñu tolloo xale yu ndaw yi rek xale yële waxuma sama yaay yi jigéen bi saa yu borom këram wàccee day nekk ci nopp boroom këram di wax rek ñoom diw am nañ lële man awma lii ba yàgg mu bàyyi loolu di ci di ko xas waa ji muñ ko muñ mënu ko muñ su ñëwee su wàccee su ndaw si commencé wax rek moom it mu fàq yaram duma ko duma yu metti mu koy def ba yàgg waa ji xëy dem ci càmmiñam bi ma demee càmmiñam ni ko man de dama bëggoon nga ñaanal ma sama digganteeg sama borom kër ndax daal diggante bi rataxatul te ñaari baat ñett yu ma wax mu yëkkati yar duma ma càmmiñ li dugg ci biir néeg bi jël benn butéelu keren ci crème yi muy naan yi muy naan de defu ci dara ñëw ni ko kii yóbbaale ko kër gi sa borom kër saa yu wàccee ba nga defaral ko reer mu reer ba pare sangu toog di dallu nga ataaya ba pare jëlal ci butéel bii rek nga log ci benn log benn guux guux boobu nag boo ko logee bu ko yàbbi tant que nelawul wala yow nga nelaw bu jëkkër ji wàccee rek mu def noonu def bu góox bi toog nee na mu koy guux ji ko guux ba guux butéel bi lu mat fukki fan ak juróom ba butéel bi commencé wàññeeku léegi waxatul jëkkër ji dóoratu ko jàmm rek a am mu dem ci càmmiñ di ni ko ah sama butéel baa ngay bëgg a jeex de sëy boo nga defaraatal ma beneen ndax ba nga ma ko defaree li ba léegi dóoratuma mu ne ko defuma ca dara xam nga boo ko guuxee da ngay téye sa làmmiñ wi doo wax fexeel ba boo àggee di téye sa làmmiñ bi donc làmmiñ wee tax ñu lay dóor kon soo bëggee jàmm jàmm dangay ngay sa làmmiñ dangay ngay kon jàmm bi ci njëkk mooy wax wax lu baax gannaaw bi ngay wax lu baax ngay jëf lu baax jëf lu baax ak di digle lu baax mënoo bëgg a jàmm te doo def lu baax di am jàmm saa yooyu def safaan safaan bi di neex ah bul yaakaar ni safaan dafa baax de safaan dafa dem jëli mbokkam yu bon lay seeti dajale leen ba nu dajaloo mu indi ko ci sa kaw képp koo xam ne dangay ngay def lu bon laa wax walla nga koy wax maanaam gisagoo résultat bi bul yaakaar ni dafa baax de déedéet ay mbokkam lay dem dajale ji bu ñëwee rek nga doy dangay gis koo xam ne day nekk fii tund jas wala côté yi bu guddi gi jotee bu gaa yi tëddee yenn saa mu yoon ndànk dem tekki bayu jàmbur yóbbu def ko tey rëcc defaat ko tey rëcc defaat ko tey rëcc ba benn jour mu def ko dajante commandant fay bële. bu ñu ko teeb ba mu ànd ak xale yee mu àndal bu àggee ba ca ñoom dana xam ni def lu baax a baax moo tax saa yooyu def lu bon gisagoo résultat wu lu bon dafa jëli ay bokkam lu baax it noonu la mel de yenn saa yi nit ni ma mën de oustaz damaa jaaxale man ni la lu xew nga ni man lu baax jigu ma man ni la lu baax kenn rek la jigul mooy ku koo xam ne day def lu baax te yàlla taxul waaye képp kuy def lu baax te yàlla tax faw mbaax googu dana dellu siwaat ci sa kaw faw mbaax googu dafay dellu siwaat ci sa kaw yenn saa yi dañuy toog ci zaawiye bi benn waay ñëw ni day sàkku ndimbal wax ay kiiwam wax wax wax wax wax ba noppi ci àndoon ni jox leen ko rek ngir jim yàlla dégg nga ci àndoon ni jox ko rek ngir jëmmi yàlla xam nga yow joxeetoo ngir soxla waa jim la wax yow joxeetoo ngir problème waa ji waa ji li nga koy jox da ko koy jox ngir jëmmi yàlla moom ak lu mu ko def ak fu mu ko dugal yow yàlla daf lay fay ngir jëmmam ji nga def man zal lazi yuqridullaha xardan xasanan fa yudaa'ifuhu yàlla kenn du ko lebal te du la fay yàlla bëggul lépp dafa laa bëgg a dimbali bëgg gim la bëgg dimbali nag moo tax mu tàllal loxoom bu tedd boobu ni la teg ci kon ginnaaw wax jàmm jëf jàmm digle jàmm bi mujj bi ci jàmm ngay ñaan jàmm ñaan di ko ñaan xam nga ñun yàlla def ñu yéene jàmm imaam wax na ko léegi nuyoo bi mu la nuyoo lu mu wax asalaamaaleykum mu ne nuyoo la boo xam ne bu la ko sa mbokk waxee yaakaar nga ni kooku lor du jóge ci moom ñëw ci yow ndax loolu la la ñaanal waaye yàlla ni maa leen ko yéene di leen ko waxante seen biir waaye julli juróom sax su ngeen sëlmalee ba wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ñetti yoon balaa ngeen def sax seen baax baaqiyaat saalihaat wax leen allahuma anta salaam pour ñaan yàlla jàmm. sëriñ bi ne aleykum sax ngay génne ci giir julli gi aleykum imaam léegi moo nu jiite <laughs> dégg nga ceerno de imaam moo jiite léegi bi muy génn ci julli gi lu mu wax asalaamaaleykum jàmm yàlla na nekk ci yéen moo ñu koy ñaanal parce que li tax moom moo nu jiite te imaam bu taxawee ci kanamu minbar dañ koy takkal garaatu yonent bi ba ba muy sëlmal te yonent bi ñaanam yàlla da koy nangu ah te imaam julli ba noppi ñaan yi mu ñaan yépp ci julli ak li mu wax yàlla ci julli daan ne asalaamaaleykum jàmm yàlla nekk ci yéen mais yàlla da koy nangu jàmm jooju nag jàmm moo tax yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàmm moo tax diine lislaam am al mooy diine bi nga xam ne diine jàmm la tur yi sax jàmm lay firi ci jàmm la jóge al islaamu mustaqun min min assalaami yàlla bëggal ñu jàmm moo tax mu jox nu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko demal maa ngi lay yónni waaye wa maa arsalnaaka illa rahmatan lil aalamiina seydi xaaji maa ngi ni aha noonu la wallahu arsalahu lil aalamiina hudan wa rahmatan izmada jazbun bila wahami asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk yi Ceerno nee gannaaw sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu wa sallam. ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp nuyo bi nga xam ne moo gën a mot moo gën a jotale ci nuyo lislaam yi mooy wax ñépp السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته di ñaan yàlla subhaanahu wa taala li yàlla ëmb ci biir nuyoo gi yal nañ ko yàlla defal mu defal ko it mboolem suñuy njaboot مدفل كسنجي جبوت جبوت با إلى يوم القيامة يلا دفكو يرتي ريومي وعيتم دفكو تيمبولم ريو ينغا خمني نور سنغال نيغي نيو الحاج سيسي اك مبولم فامم جي ياب Ceerno nee na ñu ngi bég ci moom mbégte goo xam ne am na fi mu tàmbali waaye amul fu mu yem ngir cofeelam ak dëggoom nee na mbir bu tàmbalee ca 1997 ba fii ñu toll nee na loolu commencé na yàgg lool nee na bu ci dëgg nekkul woon cofeel ngir jëmmi yàlla bu ci nekkul woon nee na du yegsi fii ñu toll tey nee na dafa fekk ne xamante gi yàlla rek lañu laloon mu nekk fondement gi nee na yàlla jooju nag mooy dox ba fii ñu toll tey nee na ñun bu ñu fi ñëwee ñoom Thierno bu ñu fi ñëwee ñëw ngeen bu ñu ñëwul fii tamit yéen tamit ñëw ngeen foofu nee na ndax mboolem li ngeen yëg mu ngi xew foofu ci ñoom ci zawiya bi ñëw ngeen wéttali ko foofu bokk ak moom li nga xam ne moo fay xew ngeen def délégation gu rëy indi lu bari dikk ak teraanga te doo leen yàqamti doo leen yokkat lu dul la taxoon ngeen ñëw mu jeex nee na léeg-léeg lu ci gën a bëri boo leen di ñibbisi fii waxtu 5 heures du leen fekk ci yoon bi léeg-léeg nga def délégation ñëw fa àndaale teraanga nee loolu jamono ju ne daf koy def Ceerno nee na lii yëpp bu dul woon cofeel ngir jëmmi yàlla du am moo tax nit warta fàtte démb nee na El Hadj Mor Cisse mi nga xam ne moo nekk sabab suñu jotaay bii ak ki ñuy wax Saaliw Jonn mu ngi dëkkoon dagg dagg nee maamu góor gi la nee na satam la nee kooku mu ngi nekkoon travaux communaux nee alxaas góor gi Tamsir Mbay mu ngi fi ñoom ñoo bokkoon dëkk fële Faas ngalli mi hunde wonno ngandi ko nganninomi duwade nena am na li mu yéene woon ñaan waaye nekkul woon ci jas nee na loolu maa ngi ko bëggoon ñaane sa dëkk ba lee di kusaanaar nee na suñu benn mag bu fa dëkkoon kooku jiwoon ci man teraanga ma ne teranga teraanga googu mu jiw ci man danaa ko delloo teraanga ba mu mat sëg Tamsir Mbaye waddani kam Saliou dogal góor gi Tamsir mbay mu àndil ko kii nga xam ne mooy Saliou Jonn ñu nekk di waxtaan nag mm, ba mu ne Ceerno loolee nga bëgg yóbbu fële ca Kusaanaar nga ñaani ko fa nee na déedéet du dem Kusaanaar de am naa góoru yàlla goo xam ne boromi may la bëgg naa nga am relation diggante ak njabootam boobu la ko booleeg docteur Saliou Ciss yàlla indi ñu fi Ceerno nee na alhamdulillahi rabbil alamin nee na nag du ñun waaye nag luñ ci waxoon lu ne yàlla defal nañu ko ndax biñ fi ñëw habibu jonno jamono jooju ki ñuy wax habibu jonno ɗum goɗano wirno kadi habibu jonno habibu jonno dëkk bi dagga ala dëkk banja banja nee na habibu jonno banja gari ɗo subaka ñu ñëw fii suba comme komi koɗumi annda boobu gan laa xawma fi kenn kalmi tan koye la ilaha illallah nee na dama yemoon rek ci kalimatu la ilaha illallah nee na sax teguma ci muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax boo ñëwee ci dëkk xamoo la nekk ci dëkk bi ñii mun nañu nekk ay jullit ñii mun nañ bañ a nekk jullit nee na comme yàlla dogal na ñëpp wuy si nañu nekk nekk nañu benn mbooloo xamoo la ñu doon nee na waxtaanel fi nga xam ne ñoom ñëpp danañu dëppoo foofu ndax mbolam yonenti yëpp depo nañu ci kalimatu la ilaha illa allah ñun jullit ñi nak yàlla dolnal ñu ci leneen li nga xamne moy muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme que nag bi ma gan la xawma ni asman ci setna wala setul موطخ وقتان جيب متنكو تي كلمة لا إله إلا الله بني دمينك بجل تسبار موم حبيب جنو مجل ميكرو نفا ملني ديگ نتيرنو Nenek dal min man comprendre naa la dégg naa sa gi dama nga ñu suñu diine ñu suñu tariqa ndax ñi fi taala anhu lañu min ne nag ñu defaraat beneen jotaay à ba 5 heures kenn añul kenn kenn yiddugul pour waajaat nee na ñu ngi tënk ci waxtaan gi yàlla yonti yàlla Muhammad Cheikhuna Tidiane nee na bis boobu dégg nañu ci Cheikhuna Tidiane ak salaatul fatih li nga xam ne baaxoo wuñu di ko dégg nee na loolu moo nekkoon kóllëre sama diggante ak Habibu Njonn ba mu wuyu ji boroomam اللهم اغفر له وارحمه موم نك اك سونو مبولم واي داولو جوليت ييب تي بير لولو سين موسى سيك موسى سيك اندا كوكو ييت مو نيو ايوا مو جيل دريغا تي تشيرنو من عبد الله بري موت من اك عبد الله بري ньо بوكو نيك ñu nekk di waxtaan ci diine gi. 11h guddi. Ah, ba 5h du matin. ak demi. Ah, nee na daal ba ñu nodd ñu julli. nee na loolu yëpp yàlla rek moo ko lal. waaye nag. bu woon alxaaji siis. nee mbir mi du demee kanam. waye sant ñel na suñu borom bi subhanahu wa taala mom dal téye na ci lool neena docteur Saliou sis tudde na ma dom te it yàlla boole ñuy nekk ben jëm neena mom El hasis mi tudde na cierno dom te dom jangi ni tok neena nee ku la bëggul sopu la du la tudde domam neena ciofel gogu nak

ñooñu mooy fi llah yàlla nañ ko yàlla defal amin bis boobu nee na xaal dikkal ko mu ne bu soobee yàlla aduna bi yëpp dana dégg turu jas nee na El Hadj léeg-léeg bu ko xaal dikkalee moom it dana ko wax nee na donte ne caaxaan la woon wa Ceerno nee na foog naa ni tey aduna bi yëpp dégg na turu jas nee na donte ne ay aéroport bi rek adduna bi yépp dégg na turu jas ni ñu déggee turu jas yal na yàlla dolli fii jàmm yal na yàlla dolli fii jàmm yal na yàlla dolli fii teraanga yal na yàlla dolli fii sutura yal na yàlla dolli fii barke nee na suñu ziyaara bii li nga xam ne mooy sababam ñun bi ñu teewee ci dëkk bi rek def nañ ko mooy dem ziyaara góor gi nee na jotaay bi dara waralu ko lu ñuy jokkante mbokk suñu bi suñu diggante loolu yi tamit ci loolu ci la bokk yal na ko yàlla saxal yàlla may ñu ñu fekkee déwén mu may ñu it fekkee at yu bëri li des nag nee na al amnu wasalaam نحن نينا توأماني حتى في القرآن نحن حتى في القرآن بتي القرآن في آخر سورة الحشر بودمي تجيختل سورة الحشر في آخر سورة الحشر بودمي تجيختل سورة الحشر di nga fa fekk ñaari tur yu màgg ci tur suñu borom bi subhanahu wa taala moo di ne asalaamul muminul muhayminu nu mu ko tuddee foofu nee na bu jàmm ñëwee nee na kóolute day ñëw bu kóolute ñëwee nee na li nga xam ne mooy mooy mooy mboolem xeetu moo mboolem xeetu yiw daal di teew bu loolu ñëwee nee teraanga ñëw mooy jàmm mooy ñu gëm mooy mboolem teraanga yi mooy ku te te teddange gi nee na lii yëpp nag mu tudd mu ngi bàyyi ko ci suñu borom bi subhaanahu wa taala xaj Pap Maxtaar waxtaan sànq nee na amul li gën a julli ci lislaam te julli nee na duñu ko duggee lu dul suñu borom bi subhaanahu wa taala fas yéene jaamu ko fas yéene jaamoo ko tamit ni mu joxee ndigal nañ ko jaamoo nga duggee ci allahu akbaru mboolem li màgg yàllaa ko gën a mun nga wax allahu kabir walla walla allahu mutakabbir waaye yooyu yëpp du wér allahu akbaru نينا كوم نين كو وخي سانك افعال تفضيل رجاء البرايا صيغه المبالغه نينا لولو صيغه المبالغه موي الله اكبر مودين يالا مو غنا ماغ مبولم لوي ماغ نينا بو ورا توپ با بري بوي ген تي جولي كي يان السلام عليكم تسوى سوالو ندي نين سلم الغوغو ماي فراتا بي لي ديس سنة لا غاني السلام عليكم السلام عليكم نين لي امنا لي موي جانغالي لي موي جانغالي موي السلام عليكم سا والو نداي جور كو بوكال دين نين نانكو امبل جامو sa wàllu ndeyjoor càmmoñ même koo xam ne bokkoo leen diine na nga ko ëmbal jàmm nee na yàlla li mu soxla ci ñun ñëpp mooy jàmm nee na ci diine l'islam bi koo ci gis mu ciy dox lu dul tànki jàmm walla mu ciy wax lu dul waxu jàmm wala mu ciy wax mu ciy jëf lu dul jàmm muy tegtaloo aaya alquran wala muy tegtaloo xadis yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku déggul de déedéet bu déggee diinam dëgg-dëgg yàlla li mu soxla ci ñun rek mooy jàmm ndax laajoon nañ yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan moo kan mooy jullit mu ne jullit mooy koo xam ne jullit ñi mucc nañu ci moom ci làmmiñam ak loxoom nee na lii rek la ñuy lii rek la ñuy sàkku nag nee na même jihaad yi ngay dégg jihaad jihaad laaj nañ ko ko nee na manil mujahid ñu laaj ko kan mooy jihaad mooy ko xam ne dana xeex ak bakkanam xeex ak bànneexam yow xeexagoo ak aksa bakkan ba noppi waaye nan ngay demee di xeex ak yeneen i bakkan nag nee na loolu tamit du lislaam l'islam Thierno nee na mooy diine jàmm mooy diine l'islam dañ ko xotti ci turu yàlla ji di salaam jàmm yonent yàlla Muhammad nee na assalaamu ismun min asmaillahi wadaahu fi l ardi fafshuuhu baynakum est-ce que nee na assalaamu jàmm tur la ci turu suñu borom bi subhanahu wa taala mooy jàmm yàlla wàccee ko ci suuf mu ne nañ ko tas ñu tas ko tas ko suñu diggante ndax kenn ku ne mun si jot Pape Makhtar wax na léegi loo am bu dee li nga am amandoo ko ak jàmm loolu dañ ko fa ne ñukk bàyyi ko fi dem wuti jàmm kon nag Ceerno ngi ñuy dénk dañu góorgóorlu ci suñu bopp ñu góorgóorlu it suñu réew suñu suñu diine ñu góorgóorlu ci suñu diine ñu gor it ci suñu diine ñu góorgóorlu it suñu diggante suñu diggante ak suñu bopp nañ ci góorgóorlu nee na li nit ñi di daw di dàq ci bi jeex la bu ci nguur ña ay dem nañu ñi ñi toog tey tamit bisa ngi ñëw dañuy dem bu xam-xam ñara ci xam-xam ñëpp dem nañu kon it boromi xam-xam yi fi nekk tey tamit dañuy dem bu dee tamit alal ñi nga xam ne amoon nañu alal ñi nga xam ne ñoo ëpp suñu borom alal yi foofu waaye ñoom ñëpp dawlu nañu dem nañu ñi fi des ñoom tamit dañuy dem kon Ceerno nee na kenn ku ne na nga xam ni na nga teewal ci sa xol bisa ngi ñëw. kenn du mucc ci bis boobu kenn ku ne di nga ci jaar almawtu baabun kullu naasi daaxiluhu kenn ku ne daal di nga jaar ci buntam te mu nit bu génnee àdduna ñetti mbir la am ñaari dañuy des ca gannaawam benn bi rek lay yóbbaale mooy say mbok ak sa alal ak say jëf bu nit ki génnee àdduna nee na say mbokk jooy ñu gunge la ba ci sa bàmmeel sa alal nee na du génn kër gi sax sa yére bu baax bi nga soloon sax dañuy wax ni summi leen mbubbi balaa mu koy yàq balaa mbubbi di yàqu nee na kon nga xam nga yow xam nga ni loolu koy moomatoo ko boo amee ay oto li oto yi bëri bëri bëri nee na duñ la la yeb ci benn oto sax nee na bu ñu baaxee ci yow nee na corbillard lañ la yeb nee na bu dul loolu sax ñu teg la ci jaag bi gàddu la jëmel la armeel nee na xam nga lii àndul ak yow mbokk sa alal xam nga ne kay alal ji topp la nee na bu doon sa lal bu nit génnee àdduna ci kaw lalam dañ lay wàcce suuf. nee na fi nga xam ne daan na séexlu ay tànkam di fa joggi fekk du solul daal nee na fa lañ lay tëral bu dee dem na nee na alal ji du ko gunge xarit yi soppi ñoom daal danañ ko gunge ba ci kuusu bàmmeel bi ñi ko soppoon ñi ko bëggoon dëgg ñoom ñoo koy jëfal li ko noonam bi bëggaloon. nee na noonam mi daal li mu doon ñaan mooy bis bu nekk waaye diw yàlla na dee waaye yàlla na dee nee na nit nag bu dee dañ koy suul léegi nag say soppi ñoo lay gasal li say nooni sa nooni liñ la bëggaloon nee na say soppi ñoo la koy jëfal buñ la suulee ba noppi ñu jël suuf si maasale ci kaw. ñu ne ah fii baax jubul de waaye waaye fii ba xam nga ne kay jubul baaxul ah, yow mi fi nekkoon démb ngay nga ngay ngay ngay takk di dóor ngay fëgg sa dënn mana mana mana a ah te yaa ngi nii nee na ñu delloo suuf sa kaw ñu daal bës ñu ne ah fii de baaxul ñu daal renforcer war suuf foofu ah ñu ne fii jéng ne de ñu ne ah dolliwaat leen suuf ah, nee na ba lépp daje nee na mu nekkaat benn rëdd mu nekkaat benn maas nee na trait boobu xam nga lu muy firi muy benn mooy allif mooy yàlla rek ay dëgg. yàlla rek mooy jëf ci jaamam yi li ko soob li ko neex nee na bàmmeel bi allif la yow sa jëmmi bopp ñu tëral la tëralu allif ñu tegaat allif ci sa kaw ñu xamal la yow nekkoo dara fi nga doon wax ne man a man a man a nee na yàlla rek mooy ki am léegi nag mu des say jëf yàlla nee na man amila salihan fa li nafsihi fa man yamal mithqala zarratin xayran yarahu boobu nag ci jamono balaa muy jot fa man kaana yarju liqaa rabbihi ceerno nee na daal fal yaamal amalan salihan waay waay waay waay mbokk jëfal jëf yu baax xaj ba maxtaar wax na boo waxee lu baax nga jëf lu baax nga dox lu baax nee na nga am jàmm aha ceer nee na ku wax def jamu dox jàmm jàmm ne aha kay Ceerno nee na daal nañu góorgóorlu ci message bii di jàmm Ceerno nee na ñun nañuy sol dal li jamu ñuy dox jamu. Nenam na mboolem lu ñuy dox ci àdduna nee na jeex ba mu suñu borom subhanahu wa taala ëllëg yowmal qiyaamati li nit waxoon li nit jëfoon nee na loolu nga fay fekk de nee na foofu nag mooy këru rëcc mboolem loo defoon fii ci àdduna boo teewee foofu da nga ko rëcc bu dee lu baax la boo demee ñu fay la da ngay rëccu su ma xamoon ma jëf lu baax bi gën a ba li nga xam ne moom laa def kon nag ceerno ngi ñuy fàttali kenn ku ne na nga jéem a def lu baax lu bëri fii nga toll ndax ëllëg booy rëcc fekk lu baax li moom ngay rëccu nee na bu dee tamit safaan bi bu ko nit defee fii mu dem foofu ñu koy fay foofu nee na moom tamit mu rëcc kon nag nit ki na moytu def lu ñaaw nee na jërul nit ki di jàngi téere yu bëri nee na jàngal sa téere bopp Molem dallo loo bëggul ñu def la ko yow bu ko def sa mbokk ceerno na daal nit lo xam ne lii bëggoo ñu def la ko moytul def ko sa mbokk mboolem liit loo bëggul ñu wax la ko bu ko wax sa mbokk muy firi li nga bëgg ñu defal la ko waaye defal ko sa mbokk yi loo bëgg ñu waxal la ko dee ko waxal say mbokk ngeen nga am ci tamit jàmm kon nag Ceerno a ngi leen di wax jërë ngeen jëf kontaan nañ ci yéen Ceerno nee na mu ngi ñuy ci sax ci suñu diine ak ñun ñëpp nag ak bëgg yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam topp it nak nee na nag bokk na ci luy dimbali nit ki mu bëgg yonti muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy bëri li ngay julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na salaatu ala nabi bu mun a doon nag bu bëree walla mu néew yow maam yow moom téye ci rek ñu xam nit lu mu def nee na jëfam gi mun na am ngistal walla mu manqué waaye salaatu ala nabi yi nee na loolu daal yàlla nee na man warul naa sama bopp ku ko def dama koy nangul rek ndax salaatu ala nabi du yow jaam bi yaa koy def. yow déedéet da ngay ñaan jëf bi yàlla defal la ko te yàlla bu jëfee jëf bi te mooy fay eh, na xam nga day nangu li nga li nga ko ñaan rek dafa mel ni rek eh, nee na ba soxla nga benn dossier ci commandant nee na commandant ci boppam moo la bindal demande bi mu ne demal signé nga indi nee na commandant mooy tontu bataaxal bi te moo bind demande bi yow dara waru la ci lu dul nee na xam nga tontu bi kay nangu bi tamit dañ koy nangu rek loolu nag mooy salaatu ala nabi yàlla ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يوم غني اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تيرنا نينا صلاة على النبي نيو بري لب نينا ني تامبالي اللهم دي نينا اويي اوبو نيار ديدت اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا على اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ولا اللهم صل على سيدنا محمد مولم لي نيو تا غناو لول لول كومونتير لا الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق بامو جيخ لينا لول كومونتير لا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم بامو جيخ لول تامي كومونتير لا E waaye daal loo ci mun a téye ceerno neen ko rek te it nga defee ko ngir sa cofeel ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te it di nga ci nga di nga ci am loo xam ni munoo ko am fenn ci bërëb nee na alquran moo gën a for lépp waaye alquran boo jàngee benn aaye benn xaraf nee na fukki tiyaa ba ngay am boo jàngee ñaari xaraf nga am ñaar fukki tiyaaba nee na ba fi nga mun a yam nee na salatu alnabi nag boo jàngee benn yoon yàlla daa di lay yërëm fukki yoon te yërmaande suñu borom nee na bëgg moo ëpp tiyaaba foor parce que ceer nee na sëriñ si nag ñu jéggal nee na dégg-dégg rek mooy wute waaye nag waxu la ni salatu ala nabi moo gën alquran waye salatu ala nabi amna na li ne ci mom neena comprimé la boo xam amul effet secondaire alquran nak comprimé la ne très efficace waye amna effet secondaire allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ngeen baal ko àq ceerno naal mu ngi ñaan ñu góor it ci suñu dëkkandoo nee na lii rek mooy lu ñuy jëriñ nee na aaya alquran bu gàtt fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum nee na lii jeexal na lépp kon na jërë ngeen jëf ñu ñaan yàlla ñun ñëpp nee na làmmiñ bu barkeel yàlla mooy ki ko xam yàlla na yàlla def ci suñuy làmmiñ ñun ñëpp barke بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا كوماندا تيارو نانا نيالنا لنا يالنا لا يالا يوك نانا فيب فو خامنا بوغ نغا تي اي غرات فيغا بوغ ييغ يالنا يالا ماي لاغا سوت فوفو نانا مبولم دال فين لا مونا يوبو يالنا فا ام تيرانغا يالا اك جامي يالا ان شاء الله ان شاء الله تعالى ciéro néna ñun ñëpp ñi yeeslu boromi aaju yi ñëpp nañu bokk ñu jàng fatiha ak salatul fatihi amin amin wax leen amin amin amin wax leen amin amin amin amin amin amin amin sallallahu alayhi wa sallam آمين. آمين. محمد آمين آمين يلا يلا ما ينفكوا